maa ngi siyaare ñëpp maa ngi bëggee ñëpp mooy li ma waxoon rek sama combat taxawal ko yombul nee naa leen sama combat en général moo géet rek ko mën a taxawal parce que moo géet events mooy fay li ma bëgg ñu ma koy fay ñëwati na nag Pape Souleye ngi nii kii nag ku ko gis xam ni moo géet events wàcc na ci dëkk bi Alaaji Mbay daan naa ko yéeg naa jox nañ ma booy naar maag booy naar taxaw na na ko gaa yëpp xam man xawma kenn waaye man sama avance ngi nii maa ngi koy jot avance laa jël si maa ngi nii sama avance laa jël si sama digganteeg Boy Naar sama combat ngi nii taxaw Boy Naar bu Faas Boy Naar bu Ndakaaru Boy Naar mu réew mi Boy Naar bu Paris tey nag dinaa la tuuti parce que xaalis laay jël sama xol dafa neex tey du ma la wax dara Boy Naar miy jaay yàpp France di nga xam ne maa la dàq jaay yàpp fuuf maag Boy Naar nag taxaw na moo gën event si moo ko taxawal ay surprise yu doy làmb ji na xam ni moo géet moo ko téye làmb ji dañ xam ne Sénégal moo géet da bokk bu yëngalee mu yëngu bu yëngalul mu fay làmb ji fan yëpp dafa fay dafa géey moo géet nag ñëwaat na laal na fi Zarko laal fi Baye Mandione laal fi Bousse laal fi ay doomu dàngoog ñëpp léegi nag dafa ñëwaat ci beneen facette grand combat lépp di ngeen teg seen bët mais moo gën events yi ñëwaat na ak lu bees tàkk maak booy naar rek la ubbee sama avance nag laa jël si kii moom ku ko xam-xam ni comptable la xaalis rek lay jox léegi nii waaw Souleymane Aïcha. monsieur bu coow li bëree rek. waaw gëj na. man Serigne Saliou Mbacke. ñu naan xam soo ko jëfee gën a wóor. dëgg la. te ndam li ku naan dara nekk ci. daa fekk tiimoo ko. daa fekk tiimoo ko. dëgg la. man Serigne Saliou Mbacke bariwul wax xaalis rek lay joxe sama avance laa jël fi nii xaalis baa ngi nii booy na waneel cat rek cat cat rek. comme cat dafa gaaw. Ah! booy naar dinaa la def noo xam ne bi juddoo ba tey lamb ji dañ xam ne Sénégal moo géet da cee bokk bu yëngalee mu yëngu bu yëngalul mu fay làmba ji fan yëpp dafa fay dafa géey moo géet nag ñëwaat naa laal na fi Zarko laal fi Baye Mandione laal fi Bousse laal fi ay doomu dàngoog ñëpp léegi nag dafa ñëwaat ci beneen facette grand combat beeg lépp di ngeen teg seen bët mais moo géet events si ñëwaat na ak lu bees tàkk maa booy naar nag la ubbee sama avance nag laa jël si kii moom ku xam ni comptable la xaalis rek lay joxe léegi waaw Souleymane Aïcha. monsieur bu coow li bëree rek. waaw du ñun. waa Serigne Saliou Mbacké. ñu naan xam soo ko jëfa gën a wóor. dëgg la. te ndam li ku naan dara nekku ci. daa fekk tiimoo ko. daa fekk tiimoo ko. dëgg la. waa Serigne Saliou Mbacké bariwul wax xaalis rek lay joxe sama avance laa jël fi nii xaalis baa ngi nii boo leen wane cat rek cat cat rek. comme cat dafa gaaw. Ah! Boy Niang dinaa la def noo xam ne bi nga juddoo ba tey.